Nous fexe aussi les li fiy génn ci si d'abord nous jëriñ la région qui programme yi état bi di indiwaat le mooy accès universel ci courant accès universel ci nord, fii zone de socle Et ay le moteur. moo tax ndox mi mënul trop comme ni nga koy amee ci ou Njaareem wala sin Saloum parce que foofu zone de bassin sédimentaire socle bi ay donc pour génne le le débit faible mais il faut plusieurs forages marteau fond de trou il faut également exploiter les cours d'eau De voir aussi yak bi nga la Falémé par l'exploitation anarchique de l'or le déversement du mercure sur le cours d'eau il faut que le Sénégal joue sa partition bien sûr nous ne sommes pas seuls nous sommes avec nos frères du Mali. Il faut qu'ensemble, Maliens et Sénégalais, nous liguions pour protéger la Falémé. Nous sommes tous ci bay mën di ci nous mu nekkal njëriñ il faut également que nous formions ndaw métiers dans le métier ci domaine yëpp liggéey yi am en priorité ñu privilégier les mënuñ wax nak liggéey yëpp ñom rek ñoko mom non nous sommes dans une république république bon que koy wax ah, dañu war a bàyyi ne dañu nous li ñu yàlla muy réew nous muy suuf si muy askan mais war nañu xel sur la question de l'emploi les natifs de la région en priorité puis le reste viendra Tu ci le courant amener une lu fi avec programme yu bëri yii PUDC PDC moy programme d'urgence de développement communautaire muy indi ndox di indi courant di indi ay yoon piste de production di indi matériel d'allègement des travaux pour jigéen ñi loolu PUDC yaakaar naa balaa ñu fiy jógee dinañ ma wax lu leer ci li ngeen di def actuellement dans la région naa ne daaw ou daaw jéeg dem nañ Tambaronkoto j'ai vu d'ailleurs le maire falli Camara, j'espère qu'il est là. Je dis, où est la lumière mon La lumière est là. Je dis, est-ce qu'il y a de l'eau Oui, il y a de l'eau, mais ni ko a pas né ndox <laughs> Donc PUDC, piment. Le piment a fait un programme important. Monsieur le Premier ministre, le piment est un programme à renforcer. Parce que pratiquement, l'État est le seul partenaire. Il est temps que aussi nous invitions nos bailleurs à accompagner les efforts du piment dans les régions frontalières. Je sais que wa bon maintenant ils ont dit c'est Mekhe Maki, mais Mekhe Gemedjeloon, euh, voilà l'exemple qu'il faut donner. À la trijonction entre le Mali, la Guinée et le Sénégal. C'était un village où il n'y avait rien. On y a amené de l'eau, de l'électricité, des, des, des ouvrages sociaux, et c'est ce qu'il faut faire dans ces localités éloignées. Donc, Promoville, pas Promoville, ça c'est pour les villes, mais PUDC, Piment, il faut les accompagner, tout comme le Pacassen rural. Bien sûr, maintenant pour les communes, Promoville doit continuer également son travail. Son travail pour l'aménagement, pour la voirie urbaine, les pavés, l'éclairage public, et le programme d'éclairage de lampadaires solaire loolu yëpp dafay participer ci luy jox gox goxaat yi li leen di jox li nga xam ne moom la ñëpp soxla muy ndox muy courant muy dundin boo xam ak ay hôpitaux comme l'hôpital régional Amath Dansokho soxlaatu leen dem fenn pour di faju l'OLU mooy le développement local yaakaar dans ne damay yemale kàddu gi fii ndax ñu war a intervenir ginnaaw madame le gouverneur may féliciter tam région de Kédougou ndax bi may njëkk a namee gouverneur bu jigéen ci Sénégal dama ne léegi ban région laa ko war a yóbbu loolu moo doon problème bi fan ñu boo ne nii ñu ne la waaw foofu moom boo àndee jigéen nangam nangam problème ma ne yóbbu leen ko Fatick fa ma dëkk ñun waa Fatick ñun moom amuñ problème Fatick ñoo njëkk a accueillir gouverneur bu jigéen ci Sénégal madame Viviane Bompassi jigéen gouverneur catholique mu yobbu ko foofu mu def carrière am ba jóge ñu def ko ministre ba benen beneen andi wat ko Fatick mu ngi fa ba tay mané doyul ko que ñu nommé len ay gouverneur donc yenen région yi il faut ngeen pare pour am ay gouverneur yu jigéen ay préfet yu jigéen parce que góor baax na jigéen baax na boo leen mën am ay ministre yu jigéen am premier ministre du war ngeen a am ci commandement aussi parce que jigéen ñi dañu jàng comme góor donc a leen handicapé rek parce que ay soxna lañu donc moo tax ñu ngi ci gouverneur bu donc trois sont en activité donc Louga ma leen di féliciter parce qu'après après c'était Kédougou deuxième région pour accueillir une femme gouverneur troisième région c'est la région de Louga kon yéen ñett ñooñu gàcce ngaalaama ñi si des nag bu ñu yeboo waajal seen bopp ndax jigéen ñaa ngi ñëw donc il faut ñu waajal seen bopp comme ça ah réew mi gën a naat Sénégal gën a jëm kanam donc lii moo doon kàddu ubbi waxtaan conseil présidentiel bu ah, mën nga ree de madame le gouverneur te fu mu nekk mu ngi xoj reetaan bi <laughs> voilà donc les ñu ngi ont ngi yemale kàddu wi parole madame le gouverneur de la région de Kédougou dit madame Mariama Traoré vous avez la parole vous parlez d'ici ou là-bas donc madame Mariama Traoré gouverneur de la région de Kédougou Oh, laissez-le, laissez-le, il n'y a pas de problème. Laissez-le. Mouna Laissez-le tranquille, il n'y a pas de problème. Ok.